comme suñ mbokk yi ni ma leen ko waxee woon tey nag gis ngeen li nga xam ne ne moom la Amie tooga mbaxali góor jigéen waaye nag dañoo ñëw nag pour ñu yegg fi mu nekk nii. suñ mbokk yi nga xam ne yéen a ñëw seetaan fii ci Gambia Radio Television Services tey na gis ngeen li nga xam ne nii moom la ami tooga nañ bu baax a baax a baax ci ba xale góor jigéen bi ñu di la bëggee. waaw war na man tam kontaan naa trop si mm-hmm. waa ñu fekkee ko beneen yoon daal. ñu fekkee ko beneen yoon waaye dañoo ànda ñu téye plate bi. su ko defee ñu ànda yow. asalaamaaleykum suñ mbokk yi nga xam ne gis ngeen tey euh, li nga xam ne ni moom lañ doon indi ki nga xam ne nii nag mooy ami dal di ñu indil tooga bu rafet boobu noonu waaye ni ma ko dee faral di defee rek saa yu nekk rek dañoo bëggee képp koo xam ne yaa ngi ñoo seetaan te nag di tooñ si rasise bu baax a baax a baax rek di ko ñaanal nag saa yu nekkee rek ci programme bi bokk bi leen li nga xam ne moo am mbaxal ne mooy am société bi mu nekk mbaxal boo xam ne tubaab fakkaala macha allah mbaxal bu neex ngaa gis te it li ci jàngat lu bëree bëri moo tax ma ne leen saa su nekk rek dama bugg ñun ñëpp ñu bokk rek ànda nga xam ne ni te moom la ñu ami toogal ndax toogal bi mu ñu tubaab fakkaala macha allah tooga bu am solo nga gis ni rawatina maxali soos bi waaye man li nga xam ne moom a ci gën a neex mooy bi nga xamee ne jël li nga xam ne ni mooy xob bi muy xob bi dal di ko jël roofee ko li nga xam ne ni mooy jën bi it man ni ma leen ko faral di waxee rek ne ne xobi mbuum bi kese rek lañ mun a roofee jën bi déedéet mun nañoo jël li nga xam ne nii ah, mooy bisaab bi ñu roofee ko jën su nekkee ne amuñ persi bi nga xam ne moom lañ faral di taamu ñu di ko roofee jën bu tamit sax gis nga li nga xam ne ni sax mooy xobi tamaate mun nga koo jël wol ko defar ko ba mu nice roofee ko li nga xam ne ni mooy sa jën bi waaye li ci gën a am solo mooy ne nekkul ne rek ne loolu rek ngaa mun a jël dal di ko defee mën na leen déedéet mbaxal bi gis ngeen ne bi nga xamee ne jël na li nga xam ne ni mooy netetoom bi dal di ko jël ngeen gis ko ni ko walee loolu mu nekk lu gis ko ne moom laa ñoo toogee li nga xam ne ni mooy soosi netetoom bi waaye na li ci gën a am solo rek mooy ne li nga xam ne moom la njëkk a def mooy bi nga xamee ne egsi nañ ba dem ci marché bi ba ñëw ay jënam yëpp la jël dal di leen jël waas nañ ba mu set bi mu ko waasee ba set dal di ci wis tuuti limon dal di euh, jël li nga xam ne am euh, mooy xoromam def si dal di dëppa jënam yi bi nga xamee ne def na loolu lim njëkk a def rek mooy ne dal dina jël tamit li nga xam ne ni euh, mooy bagaasam yi nekk bagaasam yi sew yi muy gis ngeen ko li nga xam ne mooy xobi mbuum bi moom laa jël roofee ko li nga xam ne ni mooy jënam bi gis ngeen ne waaw te it nekk na loo xam ne ni lu am solo la moom ngeen gis ni mu jël ko def ko si waaye gis ngeen ne lii paan bi moo nekk noonu ngeen gis ne daxaar bi la leen di won noonu ngeen gis ne lële tamaate lu xati bi li cee dem la poobar bi daf cee dem ak lii nga xam ne mooy netetu bi moom ngeen gis noonu xaw bi mbuum bi moom ngeen gis ni moom la rofee li nga xam ne mooy jën bi gis ngeen ne supame yaa ngi noonu gis ngeen jën bi moo nekk noonu ngeen gis tamit li nga xam ne mooy supame bi laaj bi moo nekk ni jaxatu beeg bi yeeg batanse yeeg kaana bu di bi ak limon bi ak lion xobi soose bi yooyu yëpp ngeen gis ko si euh, ngeen gis ne jaxatu bi tamit loolu lu am solo la géeja bi moom ngeen di gis noonu ñëpp pare ñoo dem ci li nga xam ne ni euh, mooy mbaxal bi waaye euh, ni ñoo faral di wax rek mooy ne gis ngeen téléphone number si nga xam ne moom ngeen di gis noonu fa euh, ji ci seen screen si koo xam ne bëgg naa bokk ci programme bi mën ngaa écrire sa téléphone nga call ci number bii nii ngeen di gis ni di 4373905 bi te nga dal di call rek mu nekk loo xam ne ni tooga bu neex la nekk waaye tamit ngeen gis ne amit ni mu ko toogee am na solo lool bi mu jógee ci loolu li mu li mu njëkk a def rek mooy da dina jël li nga xam ne mooy ne si toom bi moom ngeen gis noonu mu raxas ko ba set jël ay lijumam moom ngeen gis ne mu di leen xooli li nga xam ne mooy xobi am liñoŋ bi moom ngeen gis ne muy xooli di wital li nga xam ne mooy kaani bu di jaam bi tamit liñoŋ bi tamit moom ngeen gis ni mu di ko xooli laaj bi moom ngeen gis ni moom itam mu di ko xooli lii karot bi moo nekk nii ak li nga xam ne mooy nawe bi moom laa ñëw xooli Ah, bi nga xamee ne xooli na lii ba pare ah, ni ngeen gis na fi mu nekk nii ngeen di gis ni muy def mooy ah, jaxatu bi eh, moom ngeen gis noonu mu di ko teg supame bi moo nekk nii ak li nga xam ne ni mooy ñaambi bi banga bi tamit moom ngeen di gis nii eh, ngeen gis ko fi mu nekk nii mu di ko lii gis ngeen ne mu ngi raxas ba mu daxaar bi nag di gis ngeen ko soo leen bàyyee xel daf ko dogagum xooli leen na ba tegeekum ko boor lii nag ngeen di gis nii moom itamit lu am solo la gis ngeen ne fi mu nekk mu ngi génnee li nga xam ne nii mooy laaj bi su ko jëlee pare nag wol ko ci ginaar gi gis ngeen ne kaani bu dija bi fi mu nekk nii moom laa wol gis ngeen ne poobar bi tamit moom laa wol nii gis nga bi nga xam ne wol na yooyu yëpp bam nooy mu yekka ko daal di teg pare ñoo jël li nga xam ne nii mooy xobi mbuumam bi moom ngeen gis nii mu di ko um, wol gis ngeen ne moom laa won ni gis ngeen na bi mu paree ni moom ngeen gis ne fi mu nekk ni mu jël li xam ne ni nag mooy roofam di roof jënam bi gis ngeen ne mu ngi yalandi li nga xam ne nii mooy sigaram bi pare na pour taal li nga xam ne mooy gaasam bi gis ngeen ko jël na li nga xam ne mooy tamaateem bi gis nga ko bi mu ko tojee ba pare génnee li nga xam ne mooy xooxi tamaate bi gis ngeen ne li ñoom bi ngeen gis ni mu def da di def tuuti diwlin dal di nag bàyyi bi diwlin bi saas mu dal di jël yéetam bi nga xam ne raxas na ko ba mu set def ci pare nag jël li nga xam ne nii nag ah, mooy li ñoŋam yee yooyu def ci ak li nga xam ne mooy li ñoŋi soosa bi li ngeen gis nii nag muy dog nii li nawe bi la nawe bi nag daf ko laale ak li nga xam ne nii ah, mooy mbaxalam bi gis ngeen batanse bi